loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bariwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom i mbokkam la kon suñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu andil ñu bu bees duñ ko xeet waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi